mbooloo mi ceeru nee na gannaaw sant yàlla julli ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant ñu ngi koy ziyaare it ci bés bu tedd bii ñu ngi ndokkeel ñépp it ci wèr wi nga xamné moy wèru koor wi jàll ak wiiri wèr wi ñu nekk muy shawwal ñu ngi leen ci ñu dokkel yéen ñëpp mu ngi ñuy jotali yit suñu nuyu sëriñ wayjur di ceer Muhammad nil bashir Muntaqa taha bu maulana Cheikh al Alxaaja Umar al futi radiyallahu taala anhu mi nga xamne moy kilifa bërëb bi mboolem li ñu fiy dox walla ñu koy wax walla ñu ciy yëngatu ci ndigalam lay bàyyeekoo bi ñuy sos zaawiya bi ba fii ñu toll ci liñ ciy def lépp moom la moom Cheikh Mouhamadul Bachir bi yàlla dogalee ñu sos zawiya bi ba commencé di ci julli Ceerno daal di laaj ne ndax di ngeen def ci zawiya bi tafsirul Qur'an mu daldi koy tontu mu ne ko déedéet tàmbalee guñu mu ne waaw joxe naa ndigal tàmbali leen yàlla dogaloon na xamanteem ak xaj Pape Makhtar bi fekk yàlla àtt ko am na nee na gis lu ne sabab nee sabab bi nag mooy suñu daaira bi nga xam ne moo fële ca Caaroy at muné ne dañuy def conférence ñu daal di koy tuddee tàkkusaanu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom nag Ceerno bëri na li muy wax bari na li muy wax ni bu ñu tuddee mbir ab dara loolee ñu ko tuddee na fës ci jotaay boobu boo tuddee lenn yàlla bu nit ñi wuysee nañ fa fekk yàlla boo tuddee mbir yit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñi wuy see it nañ fa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme que wa waa Caaroy daña wax ni takusanu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te mom cierno yi lañu def sen njit neena njit nak da ngay jël sa ab responsabilité ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'uulin an ra'iyatihi bu nit denke bopam diga tiofel digante yàlla ak yunitibi sallallahu alayhi wa sallam neena lolu ab responsabilité la legui nak yow mi nga xamne yow lañu dénk ak momé dénk bopam yow ànd leen yéen ñëpp ngeen delu wat ci yàlla ak yunitibi sallallahu alayhi wa sallam ceerno daa di wax daaira caaroy bi man de bu doon sama sago boo leen waxee ni daaira bi de dañuy organiser takkusaanu rasulillahi sallallahu alayhi wa nee na waruñu rax ci takkusaan boobu lenn lu dul sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak siiraam fu mu mun a sukkandiku nag baax na ndax li ñu bind ci sang bi bari na waaye téere wii ñuy wax xilaasu zahab bu suñu sëriñ suñu maam mawlana sayidil xaaji malik si radiallahu taala anhu nee na pour nit raw ko ci wax yonente bi sallallahu alayhi wa yombut kon nak set len ko xamne ku ku dégg la ci khilasu zahabi ngeen daal di koy jox mu defal ñu waxtaan wi bobu nak lañ ko boole ak hajj pap Makhtar mi ceeru ne len insha allah taala bu jotee dana new bari yu ma bëriwuma xam-xam sax waye leg leg dana déglu borom xam-xam yi amanati ci déglu gi ma di déglu ma ciy foraatu dara bu dee li may foraatu ci borom xam-xam yi ñëw naa foofu mi nga xam ne def waxtaan dégg naa li nga xam ne la dajale ma daa di wax ni li yonti yàlla ibrahima waxoon yonti yàlla ismail fi nga def sa buntu kër foofay buntu kër gi saxal ko fa te it nga bàyyi ko نحن لولو نك أب قصة لون تي تي وقت جوجو نحن ينتي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمدفع دوم فليت أرض الحجاز لك لك دنا فنيو ديكو زيارة ديكو نميكو ديكو سيت mu ñew fekk ki mu yoré ci soxna nekul jigéenu kër mu daal di koy wax ni busa sa borom kër dellusee nee ko daal buntu këram gi na ko soppi mu def ko feneen fekk yonti yàlla Ismaila dafa génnoon dem rëbbi bi mu ñëwaatee mu daal di soxna si ndax amul ku fi jaar ci sama gannaaw soxna si daal di koy tontu ne benn góor daal gu màgget lool te bari wax jaar na fi muy laajte rek di laajte te it sonnal ñu fi lool amul coono goo xam ne teguñu ko fi ndax léeg-léeg mu laaj li aajom nek léeg-léeg mu laaj tamit lo xamne ne yoonam newu ci muna ah bi muy dem amul lu mu wax muna ah aha kay am na wax muna buntu kër gi nang ko changer fi mu nek du place am mu ne ah góor googu fi ñëwoon kookay yontu yàlla ibrahima kookay sama woy jur mu ne li mu wax li mu junj foofu moo dina yow naa lay bàyyi naa la yeewi yow doo jigéenu kër doo soxna mu daal koy jéggal nag mu daal wuti weneen soxna ba jamono yontu yàlla ibrahima ñëwaat fa soxna si daal di koy teeru daal koy teral daal koy toggal daal di koy waxtaan mboolem loo xam ne dana bégloo ab mag soxna si daal koy defal góor gi bi muy tàggu nag moom yonent yàlla Ibrahima mu waa di wax soxna si ba sa borom kër bu ñibbisee nee na buntu këram gii na ko gën mu daal koy saxal nee buntu kër bu baax la yonte yàlla Ismaayil ñëwee mu daal di koy laaj mu daal di laaj soxna si ah amul ku fi ñëw sama gannaaw ndax yonent la xam ne dana am ku ñëw ca gannaawam mu ne aha góor gu baax ñëw na fi góor gu bari teraanga ku rafet wax borom leer boo ko séenee gis ko rek koy bëgg musumaa gis nit ku mel ni moom. wax yu yu yiw lay wax nee na ñaan yu baax la may ñaanal ndénkaane yu rafet la may dénk nee na daal bépp yiw bi nit di seet ci doomu aadama mu ngi ci góor googu mu ne ah bi muy dem amul lum la dénk lum la wax mu ne ah kay am na li ma wax mu ne sa buntu kër gi na ko saxal ba mu dëgër nga daal di koy jàpp ba mu dëgër ma daal koy nga daal di koy baaxal te defar ko mu ne góor googu nag mooy yonte yàlla ibrahima moo fi jaaroon mu ne ah yonte yàlla ibrahima mi may dégg mu ne aha koo koy samay wayju mu ne naa la tey yooyu yaay jabar ju baax moom it ceerno ci li mu doon wax mu ne su ma demee caaroy li may foraatu ci bind ci xam-xam su ma ñëwee fekk moom it lu mu dajale jaar na yoon mu daa di leen wax yéen tamit fii ngeen téye téye leen ko ba mu dëgër bu dee am na it ni mu mel duma wax dara waaye nag danaa leen wax ni boo leen amee lu ko gën wala lu ko nduru jël leen ko ngeen teg ko ca wet wa bu leen dindi loolu waaye seet leen leneen ngeen daal di koy teg ca wet wa yàlla dogal biñ fa démé néna na daaira bi yépp démon na ma sha allah ñu yexsi ñu def ñu présente mu kambali waxtaan bi néna ma sha Allah tabarak Allah nee néna luma amone yaakar ci fofu ci fekk fofu ci xam-xam ci ci fekk fa tamit ab dégg-dégg nee na gis naa ci moom xaj Pape Makhtar lu sut loolu ndax ñaari xam-xam ñoo am benn xam-xam wi nee na tiim lañ koy wax mooy yër téere am na ñoo xam ne dañuy yër boobu it xam-xam la am na ñoo xam ne dañuy yëg boobu it beneen xam-xam la am na ñoo xam ne dañooy yër te yëg te it yëg ñeneen ñi ñii dañuy yër rek ñii nag dañuy yëg xam-xam wi ñii nag dañuy yër ci xam-xam wi te it yëg li nga xam ne moo nekk ci xam-xam wi nee na ñooñu nag ñoo gën a mot ñi nga xam ne dañuy yër rek nee na ñooñu dañu ci yër rek ni ko bind mbind mi waxee noonu lañ koy waxee ñi koy yëg nag. ñooñu dañuy yëg la nekk ca gannaaw mbind mi eh, nee na boole nag ñaar yépp nag nee na kooku nag mooy ki mot ki ndax alquran am na ay xam-xam yoo xam ni kenn xamul nu mu toll léeg-léeg bu demee ci suñu sëriñ Ceer Mouhamadul Bachir dana ko waxtaanal alquran loo xam ne xamu ko woon. nee na ni ko xaj Pape Makhtar waxee woon sànq wala ni ko xaj Makaan waxee woon sànq mu ne saa yu fi ñëwee di déglu tafsiru Qur'an dana dégg ci tafsir wi loo xam ne déggu ko woon daaw mu dégg ci tamit loo xam ne déggu ko woon nee na noonu it la war a demee ndax suñu sëriñ Mawlana Sayyidi Cheikh Ahmad Tidiane nee na daan na am semaine wala fukki fan. walla lu ko ëpp fekk wenn aaye la doon firil taalibe yi te saa yu ko firee du bokk ak piri mi nga xam ne moom la firi woon démb bépp maanaa bi mu andi du bokk ak yeneen maanaa yi nga xam ne moom la indi woon bépp mbóot boo xam ne wax na ko ci dana ci wax yeneen mbóot yoo xam ne du bokk ak yi mu waxoon démb te fekk wenn aaye la te alquraanil karim ñoom ñi nga xam ne ñoo koy lim mooy 6666 aaye nee na bu dee benn aaye wu ne nit dana ci nekk weer te jeexalu ko nee na balaa kaamil bi di jo di jeex dana sori de moo tax kaamil bii ñu doon tafsir ci ñetti at ren la jeex te it noonu la war a demee ndax sayidna ali radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom mooy buntu xam-xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko téere yi nettalee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha kii nga xam ne nag mooy buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu xam-xam nee na bu ko sooboon ربنا با بسم الله الرحمن الرحيم نينا تومب با بسم الله الرحمن الرحيم بي مننا تي داف شرحه موكاي شرحه بامو داف تي اي تيري لو خامني لومو توتي توتي نينا نين فوكي سفو گليم دا نتي ген نين فك سين بي نيول ميم بي نيوغول اك لنين لنك تا كانامم نيوول كون نونو لك موي القران الكريم xaaj Pape Makhtar Ceeru nee na ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaar ñu ngi lay ñaanal kontaan nañ ci yow Ceeru Mouhamadul Bachir ñaanal na la te ñaanal na la te ñaanal na la tey am na fi ma yónni woon bu dul woon kaamil bi ci tafsir bi nee na du ma ñëw léegi waaye bi ma ko waxee li mu digle woon tey alhamdulilahi rabbil alamin ci la ñuy def xatmu ci tafsirul quran bi ci ki nga xam ne yaa ko joxoon ndigal te léeg-léeg mu koy laaj ndax kooku tafsiram bi jaar na yoon ceero ne ko alhamdulilahi rabbil alamin mu ne kon ne nag dem leen ngeen yegg si foofu ndaxte Sharif Abdul Muttalib la ko yónni woon nee na tey la ñeen fukki at li wéyjur Sharif Mouhamadul Habib génn àdduna foofu la ñu yónni woon ñu dem wuutu ko foofu tey it moom la ñu def pare na ci bis boobu. موم اك شريف مكي حيدر لا واخون لا نيو دم نيووتو كو فوفو واي خام نين لو تول سيد الشيخ احمد التجاني خليفه مو داف باريني خليفه شيخ عمر خليفه شيخ عمر انيفرسير جيلنادم ndax cheikh mohammed الحبيب ak cheikh سعيد نور ño bokkon dundu ño gennano aduna ak Mawlana Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy ak yenen khalifa yi fa nekkon neena koku nak buñu defé non mbir mom neena lolu loolu wul ci Ceerno waye nak neena na fonk gi mu fonk fi fonk gi mu fonk alquran nee na fonk gi mu fonk ndigal bi nga xamne mom la digle won mu ne nañu dem fe buñu ñu ñu daadi sàkku njéggal bu leen Chérif Mamadou Abdoul Moutalib joxe ndigal ñu daal di dellu siwaat bu dee am na ñu mel ñu daal di séddu ñooñu des fa moom mu dellu siwaat ngir mu toog ak ñun ci ndigalam mu wuutu ko fi ci jëf ji ba yu mu noppee neen loolu muy firi moom mu ngi ànd ak ñun ci biir ak ci biti mu ngi ñuy ñaanal ci biir ak ci biti yalna na yàlla nangul ñu yal na yàlla nangul ñu ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala nee na lu ñu fi jàng ci alquran mu bëri wala mu néew araf bu ne tiyaaba bi nga xam ne moom lañ ci wax yal nañ ko yàlla fulal ba du xam fi mu yem mu daal koy bind suñu carnet jëf mu daal koy denc fi nga xam ne seytaane du fa yegg nee na ci biir tiyaaba ko def ko njot mboolem suñu way dawlu yi ak mboolem way dawlu jullit yi nee na yërmande yàlla yaatu na yal na leen yàlla diigal ci yërmandem gi nee na ci biir xat mu wi ak suñuy njabooti njaboot ba ila yawmi alqiyamati yal nañu yàlla may may leen barke qur'an يلنيو يلا ماي ميلن بركة القرآن يلنيو يلا ماي ميلن بركة القرآن يلنيو يلا ماي ميلن فتح القرآن يلنيو يلا ماي ميلن فتح القرآن نير بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننبألك يوم القيامة لحسب مختار مجيء نياري كوليلي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره yal nañu yàlla boole ci kuréel woowu yàlla musal ñu ci bokk ci weneen kuréel wi ñun nag axalu tijaaniya am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar lool nee na wali yàlla yëpp ci jullit yu baax yëpp kenn ku ne fi nga xam ne mooy naanuwaayam kenn ku ne fu muy sooboo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baax na jaar na yoon waaye ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu tijaani ya ñun kenn xañuñu ci yiw yi ndax benn xadis rek moom rek lay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu aadama xataa wa xayrul xataaina attawaabuuna nee na ku dul juum amul nee na waaye ki gën ci ñiy juum moy ki nga xamne bu juumee ndey delu ci boromam neena njabotu tidiane tijaan ne mu ngi delu ci yàlla lu tollu temer ak fanwer suba ak ngon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla waxon nako ben yon rek bo delo ci yàlla yàlla djegal la say bakar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muné bis muné ci léeg-léeg ci ci lenn ci ay xadis dana def astaghfirullah téeméeri yoon li gën a siiw nag dana def juróom-ñaar fukki astaghfirullah mu ne ku def astaghfirullah juróom-ñaar fukki yoon ci bis yàlla dana la jéggal nee na juróom-ñaari téeméeri bàkkaar nee na moo xam ni mu ne perte na nag koo xam ni mu def bàkkaar mu defaat bàkkaar ba mu tolloog juróom-ñaari téeméer ci bis bi waaye ñun tey xamuñu lu mu toll boo nekkee ci sa biir kër bàkkaar fekk la fa boo nekk sa biir néeg yow nga dem wuti ji bàkkaar ndax téléphone yi yaa ngi déglu loo warta déglu ah, yaa ngi xool loo warta xool fekk ci sa biir néeg fi nga xam ne waroon nga wéete ak sa boroom nga koy ñaan ngay tàllal say loxo ngay jégalu ci moom nee na foofu ngay fàtte loolu nga daal di dellu ci àdduna ngay xool loo warta xool ngay xool loo warta xool ngay wax loo warta wax ngay wax ak it ñoo warta waxal te xamoo bàkkaar gi nu muy toll kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ñu daal di téye mooy ci suñu tariqa nee na tariqa bi boo yeewoo suba nga nga daal di jéggalu nee na ci sa laazim ba ngoon nga yendu def bakkaar li nga yég ak loo yégul loo tey ak loo teyul nee na nga toog nga daal di jéggalu sa boroom nga ne astaghfirullah yàlla jéggal ma li ma yendoo wax yàlla jéggal ma li ma yendoo wax yàlla jéggal ma li ma yendoo xool ak li ma yendoo déglu ak li ma yendoo jëf ak li ma yendoo xalaat ak li ma yendoo yendoo yendoo yépp yàlla jéggal ma te yàlla wax na ku dellu ci moom mu daal lay jéggal boo dëkk boo dëkkee noonu ba guddi nga yenu ay bàkkaar ba gu ba ngay tëdd bu dee ñëwul ba nga yeewu suba nga julli ba not nga ja nga daal di ñaanaat njéggal yàlla jéggal say bàkkaar eh, moo tax casier judiciaire njabootu Tijaan nee dañ koy wax casier vierge moom amul ci nekk moo tax suñu sëriñ ci damaanu rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne tijaaniya day dugg aljanna bi xayri xisaabin wala iqaabin nee na dem nga amoo benn bakkaar te te ku amul bakkaar mooy dugg aljanna nee na kon buñ la nee da ngay dugg aljanna loolu yéemewul ne bu dee leneen la nee na foofu la boroomam dem bu de fi mu jëm comme que ay bàkkaar ñoo bari ci moom ne loolu tamit yé yé yéemewul tamit te yàlla du du du xeeb nag ah, wax na léegi de fa man yaamal misqaala zarratin lu toll lu ne atome nee na atome dara mënu kaa gis lu dul miskorkop nee na lu loolu tuute ci jëf ju baax nga jëf ko yàlla nee na du ko fàtte te it la koy fay wa ma rabbuka bi dhallaamin lil abid nee na ci nekkee yemoo ci nga daal jàng salaatul faatihi salaatul faatihi bi nga xam ne per nee xajul ci àdduna ah waxuñu nag nga ñëw ci kalima mooy kàddu tawxiid di laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah nee na yàlla nañu yàlla def tijaani yoo xam ne duñ leen summi yàlla nañu yàlla def tijaani yoo xam ne dañ leen di nangul te kenn du leen summi yàlla nañu yàlla may ñu daje fi na gën a déwén kon nag yàlla na yàlla fay yiw ku ci def dërëm wala ku ci bëggoon def te deful wala yàlla dogalul sax mu def ci ci biir jotaay bi yàlla na yàlla duggal ko ci ni mu ko waxee woon sànq القوم هم القوم لا يشقى جليسهم يلا يلا دفع اللول اللهم صل على سيدنا محمد وسلم